jërëjëf mbokk internet Dakar People ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen ne dal leen ak jàmm si seen beneen émission te nag émission bi dafa ñëw seet si ki nga xamante ni bii ku yàlla baaxal la si wàllu xam-xam muy def ay résultat yu parfait fii si Sénégal bu wër àdduna wërngal këpp di Serigne Ousmane Wilane Serigne Ousmane Wilane ñoo ngi lay nuyu lan ngay nuyu mbokk internet Dakar People lay seetaan ah alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa mawlana muhammad ibn abdillah rabbi sarax li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ngi nuyu mboolem waa réew ak ñu nekkee bitim réew di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi di leen wàcc seen wàccuwaay di ñaan yàlla yàlla def jàmm ci réew mi loolu la ñuy nuyoo incha allah. sëñ Ousmane nuyoo bi am na solo lool waaye tamit ñu ñëw fii toog ngir waxtaanee ponk yu bari bari bu naa ne laaj ak ñu gis ni faral di seetal nit. koo jëflanteel rek mu gis si ay résultats yu baax gis si njëriñ ba yëg si boppam ñu buggoon xam Serigne Ousmane lal la mën si seet. waaw alhamdulilah comme ni nga ko waxee léegi ci wàllu seet am nañ ci may goo xam ne yàlla moo ñu ko jagleel. may goo xam ne yàlla dafa wax ne su ma leen joxe teraanga da leen koy waxtaanee wala su ma leen xewalee da leen koy waxtaanee xam nag yàlla moo ko moom moo koy dénk ko neex waaye du la ko dénk mukk lu dul ci ragal yàlla yàlla def may ñu si xam boo xamante ne ni amul dara luñ ci nataabale ndax da nga gis nit koo xam ne sax dana jël xaalis pour seetlu ji waaye ci ñun ñii lay ñëw pour seetal ñu seetal ko mbiri kooku wax ko résultat fii ci biir réew mi ak ci bitim réew may ñu si am na ay façon am na petaw waaye duñ jëfandikoo boobu ndax boobu ci lislaam nanguwu ko waaye nag am na bi nga xamante ne ni ramlu la boobu lislaam nangu na ko ak dana ñu seet ci listixaar fanaanoo waaye tamit danañu seet ci appel direct ñu wax la li nga xamante ne mooy soxla te suñ la ko waxee day mel ni dafa am ko yónni mu ñëw dee ñu sa soxla loolu yàlla may nañ ci may goo xamante ne ni amatul ñu ci waxaat fu mu toll ni suñ ci waxaat sax dañuy mel dañoo bari wax waaye yàlla may nañ ci loo xam ne man gaw ma ne am na keneen ku ko may fii nii voilà yàlla xam na loolu. Mhm. macha allah am solo bu baax a baax gis ni li nga xamante moo di wàllum xëccoo. Mhm. xëccoo bëri na trop comme lu si mel ni si bërëbu liggéeyukaay. Mhm. ñu bëggoon xam tamit Serigne Ousmane lan la waaw alhamdulilah loolu liñ ci man yàlla suturaal nañ ñi ciy liggéey ci alquran lañ ciy liggéey. ndax ñun suñ lépp dafa sell ndax duñ liggéeyee leneen lu dul alquran te alquran ci boppam boo ci liggéey dafay laaj nga sell ba pare sellal ci li ngay def ci wàllu xëccoo bari na ñu ñëw di déclarer ci wàllu bureau yi liggéeyante beeg yàqante bi ci bureau yi wala utam place bu métti ñi bokkante ci loolu waaye yàlla may nañ ci secret yoo xamante ne ni képp kuñ ci jëflanteeg du passé weer yàlla jox la liggéey boo xamante ni diñ ci jàpp du ci soturloo incha allah bu neex yàlla loolu moom yàlla jagleel nañu ko te ñi nekk bitim réew xam nañ li may wax ci ñoom dañuy daj ci loolu ci ay xaccoo ci bitim réew mais alhamdulilah yàlla ñuy ni fii ci bi biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi ci bu baax a baax a baax képp ku fi ñëw daal bu soobee yalla ak taw soxla bu mën a tawat ci wàllu xaccoo incha allah lépp looy xacc rek incha allah dinañ ko teg sa loolu mu amul ci benn sikki sàkk incha allah bu neexee yàlla. a baax waaye tamit ñu gis ni li ne sax xëccoo bi bëri na fi tamit. comme lu si mel ni ñooy ëpp luñ koy dawantu muy dëgër si ñoom loolu ñu bëggoon xam sëriñ la loolu. waaw loolu xam nga day xëcc dara mu dëgër ci yow ñaareel war ngaa dem xool ci sa bopp lan la xam nga xis ya dafa am maanaa wi am nit ki war ngaa xool sa bopp ci sa wàllu dund. ak ci maanaa bi maanaam am na loo xam ne li arab yi wax ne loo xam ne aynul mujarrad mënu koo gis loo xamante ni docteur bi sax soo demon rek mënu koo gis. waaye am nañu yàlla dénk xam-xam ñoo xam ne boo demee ci ñoom yàlla mun na laa woon lan mooy seen jafe-jafe bëri na loolu ñi ci xëccoo di daw ba daaru te jotuñ lañ bëgg loolu yëpp li leen sonal bokku na ci cat bokk na ci làmmiñ bokku na ci bët te bët ak làmmiñ waxoon naa leen fële ne leen dëgg la ku ko ci weddi rek daf laa dalut wala nga gisul kum daal mais nit ku bëri na lu muy yootu jotu ca sax làmmiñ ak bët moo ko teg bëri na ñoo xamante ni àndaale moo leen sonal àndaale nag am na ci gu góor am na bu jigéen am na ñoo xam ne am nañ faru rab am na ñoo xamante ne ni am nañ coro rab yooyu noonu bokk na ci yi nga xamante ni dañuy tënk doomu aadama bi ba lépp lu muy sàkku pour mu mën ci jot dafay jafe bu fekkee ne ku góor ki la mën na la feeñu feeñu jigéen nekk yow ba soxla dara lu dul moom rek ngay teg soo yaa ngi ci leneen lu la neex ci yaa ci yeneen yooyu mën na la xëñ ba lépp li ngay xëccoo moom daf lay mujj dëddul parce que ngay dem sa xel du ci nekk bu dee ku jigéen ki mun na ko teree am jëkkër mun na ko teree am doom mun na ko yàqal lu bari ba tax na du man li muy ut sax nu ci jot moo tax bu ñu setsee bu soobee yàlla buñ la xoolee bu baax xoolal la say mbir listixaaral la ba wax la li ci nekk amul benn sikki sàkk man lépp deetuma joxe sax fu mu toll nii naan leen ay tey wala suba wala ginnaaw suba lépp ci juróom-ñaari fan laa koy liggéey incha allah bokk sango sangoo li ma wax boo déposé kayit incha allah di nga ci jot ci kàttan suñu borom ak foo ko mën a déposé nag allah. ñu gis ni tamit comme lu si mel nii si famille. Mhm. famille yi na jaxasoo bëri na xiiroo ki ngaay mhm. ñu xam ndax Serigne Ousmane day boole famille mun naa ne sax noog boole ay nit la waaw loolu am nañ mën nañ ko incha allah dañ koy liggéey ci wàllu nopp ñu ngi ciy liggéey liggéey yu jéggi dayoo mhm. yoo xamante ne ni comme kër gi bu ngeen bëggee mu nekk benn famille bi yëpp nekk benn loolu am na luñ ciy liggéey ñu ngi koy liggéey ci. maakisiina fihi abadan aaya boobu kenn ku ne xam na ko aaya boobu si la ñuy liggéey lépp lu ñuy liggéey lu ñu war a boole mën nañ ko si liggéey boole leen ba nga xam ne yéen ñëpp da ngeen nekk ci benn ba du am xiiroo ŋaayoo mais nag toujours dafay am ci famille yi ñoo xamante ni yàlla dafa leen di taxaw taxawaay Yusuf Yusufa yàlla da ko may may goo xamante ne ni néew na pour mu may ko yónent ginnaaw yónent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo taxtoon nag li mu nekk yàlla Muhammad sallallahu alayhi dañu wax ne Yusuf yàlla may na ko taar may na ko lépp noonu la amee ci famille da ngay dem ci famille boo xamante da gis koo xamante ne yàlla koy def mu nekk biddiwu famille boobu noonu yàlla dimbale ko ubbil ko ay buntam yëpp tàkk da gis ñoo xamante ne ñoo bokkoon juddoog moom yaroog moom ne ko lii waru fee am lu tax mu fi am ndax yaayam sayu fi lu fi nit sayut mhm. waaye yàlla moom mooy def ci coobareem léegi nag looloo waral xeex yu bari ci biir kër yi da ngay dem sax nit yàlla dimbale ko ba jox ko benn garaat bi wala benn maqam nga gis ñi mu dëkkat ñoo koy njëkk xeex comme li olof di wax ne boo rey ku rey say noon say mbokk yi njëkk a jeex li koy waral yëpp liggéeyante ci biir famille bi la. léegi nag bu yàlla joxee nit ki maqaama bi da ko koy nangul jàppale ko mu dem mais Sénégal li fi am léegi yaa ngi ci kaw man maa ngi suude xaj say tànk noo ma def rek na nga wàcc suuf rek man ma yéeg léegi nag loolu moo waral fu mu toll nii kër yoo dem rek nit ñu jubootuñ parce que tey boo xëyee fekk si sa oto liggéey wala nga xëy fekk si sa buntu nekk liggéey wala sa buntu kër liggéey ngay jéggi nga xëy mënoon mënatoo yooyu tamit jaar nga silaat sa bopp ñu bëri ñu fi nekk nag ay liggéey moo mais ñàkkuñu wërsëg ñenn ñi cat moo leen téye ak la bët ak làmmiñ ñenn ñi liggéey moo leen ba tax na lépp lu ñu yóotu rek duñ ci mun a jot dañuy am toujours ak jafe seen àdduna dañuy dem ba mu yàgg dañuy wër sëriñ si yëpp man dañ may déclare dem naa ci sëriñ diw dem naa ci sëriñ diw dem naa ci sëriñ diw mais fu ne li ñiy gàmmu ak ñiy raas dem ñëw wuute dafa bëri ñu yàq métier bi ba nga xamante ne ni léegi pour nga xàmme ci kii wax dëgg ak kii wax safaan wa mu wuute ñun nag alhamdulillah yàlla dimbale nañu képp kuy mosu jëflanteeg depuis ñu dugg ci métier bi ba léegi nii dugg ci euh, milieu bi ba léegi waxtu nekk ñu ngi gisanteeg jaam yàlla yi ñu ñuy wax nañ alhamdulillah yëg nañ dollar bu baax a baax ba lépp lu ñuy am nar nañ ko bokkook ñun ñu ne liñ am dañ ko bokkook ñoom ndax ñu ne ku ñu lebal euh, guddi ku ñu lebal bëccëg ñu fay la guddi képp ku ñu lebal bëccëg rek ñu danañ la fay guddi ci kàttanu yàlla te guddi mu ëpp sutura lépp ci kàttanu suñu borom incha allah. macha allah moo ngi noonu ñu gis ni tamit comme lu si mel ni wàllum wërsëg. Mhm. ñenn ñi mun naa ne sax dañuy naan seen wërsëg daf mun naa ne day faral di tëju. Mhm. ba dañuy toog sax di ko waxandu ma gis ni Serigne Ousmane ñu mu jëflante ba mu leen di defaral maanaam wërsëg bu takku wërsëg bi nga xamante ne dañ siy dem ba gis si loolu tamit loolu waaw alhamdulilah loolu am na ndax ñun suñu liggéey yëpp comme li ma la wax sànq nee naa la duñ liggéey mukk lu dul ci alquran ak suñu kurus gii nii alquran nag duñ ne la alquran rek du manqué sunguf am na yoo xamante ne ni soo demee ci euh, comme yi demee ni ay garabu siddéem ay garabu was-wasoor yooyu yëpp dañ ciy liggéey waaw loolu ñi ci xam wàllu ibbeeku yëpp amul kenn ku ci mën a liggéey ci sunguf liggéey boo xamante ne ni dafa ibbi lu dul nga jaarale ko ci alquran wala ci sunguf yooyu mu wax la yooyu nag dafa am ñu koy kaase waaye am na ñoo xam ne mun nañu koo kaas maanaam mun nañ koo boole am composé am na ñoo xam ne mënuñu ko léegi nag ñun pour ñu taal ci mu gaaw loolu dañ koy liggéey ci suratu waaqia lañ koy liggéey waaqia bi la ñuy liggéey boole koo waswasoor bi am luñ ci def ci kàttanu suñu borom téel la kurus du diire comme ni ma la wax juróom-ñaari fan ci la ñuy liggéey lépp incha allah nga commencé gis sa bopp ne yaa ngi commencé booy ci mbiri waaw léeg-léeg nga gis nag ñoo xam ne dañ am jafe-jafe dem ci nit xamuñ sa sarax sax jox la sarax boo xamante ne ni yow waroo ko woon a génne comme waroon a génne tey kaamil yi nga war cee génne sarax foo ko joxe rek tey ki nga ko jox bu ci jàngi alquran am nga ci yool ba ilaa ajalil musamman boo ko joxee ci daara xale bu ci jàng alquran ba mokkal am nga ci yool léegi ñu génne loolu yow nal demal nga génne laax wala nga demal nga génne xar rey xar am na ñoo xam ne rey jigu dana nekk coono ci ñoom loolu nag ki xam sarax dëgg-dëgg ak ci xam biddiw doomu aadama bi kooku rek moo ci mën a liggéey ndax biddiw daf ci am solo pour nga xam ko ci yoonu ñaan yàlla léeg-léeg nit ñi bëri li leen gën a réeral bokk na ci ñàkk xam biddiw doomu adama bi xam nga dafa am maaiya am trois turaabiya am hawaiya am naariya léegi nag yooyu boo leen ràññewul ñeenti biddiw yooyu boo leen ràññewul mun na la sànq ki nga xam ne biddiwam ndox la kii biddiwam suuf kii biddiwam safara la kii biddiwam Euh, kii la naar ya ak euh, hawa ya ngelaw la léegi nga nar a jël ñooñ seen biddiw yi xamoo seen biddiw yi dara nga nar leen a génneloo sarax kooku da nga ko lor mbir yi nañ ko teg ci yoon ñi ko jàngi woon nañ ko dem jàngi ñu ko doon seen bàyyi yokku xam-xam ñëw toog fii di wax ak nit ñi nañ leen dégloo xel bañ leen a dégloo xol ci kàttanu yàlla képp ku ñu seet si ñun ci juróom-ñaari fan ñu jox la cangat boobu noonu sa gàllankoor yëpp incha allah yàlla dina ko dindi ci kàttanu suñu borom waa kaaraange mun naa ne sa kaaraange am na lu ñu ci yàlla may fii laa koy waxee ci sa émission bii laa koy waxee képp ku bañ dem kaso boo ma seet si datoo dem kaso ci kàttanu yàlla am naa ci secret bu wér boo xamante ne nii aw ma ci benn sikki sàkk ne su ma la ko defalee bu soobee yàlla soo ko takkee amul kenn kenn ku la mën a yóbbu kaso ak loo man def na ci àdduna bi loolu moom yàlla may na ma ci may goo xamante ne nii amul daara daara daara lu ma ci lantal génne naa ci nit fu nekk ci bitim réew génne naa ci nit ay Amérique génne naa ci nit Angleterre ñoo xamante ne nii ci coono ci ci ci garaaw yi lañ nekk waaye waxtu ma leen ko defalee ba léegi nii kenn nekkatu ci kaso ñëpp a ci biti te amul benn sikki sàkk ne képp ku ma seet ci wàllu woowu noonu mën naa la assuré ne lu la neex defal ci kaw suuf waaye kaso moom pare nga ci yow déetoo ci dem ci kàttanu yàlla incha bu neexee yàlla mais nag ni laaj na kaaraange rawatina élection yi ñuy jëm élection yi ñu jëm gis nañ ci deret ju bëri juy tuuru te ci ndaw ñi la ëppee ku ci mënta ut musluwaay mën ut kaaraange lu la aar toogal sa kër laaj na nag nit ñi toog tamit génne sarax ndax dëkk bu demee ba toll fii nii war nañoo génne sarax bu ñu génnee sarax yi ñaan yàlla yàlla musal ñi ci mais amul fenn fu ñuy jaar ba xamante nii lu mooy alquran ji buñ ci jaaree ne yàlla mën nañu musal ci yenn yi nga xamante ne ñu ngi koy séentu ci ñaaw ñaaw mais bu fekkee jaaruñ ci alquran bii nga xamante ne ni tey jii nii moom rek lañu yàlla rusee jaaruñ ci ah yàlla mun na fi indi leneen loo xamante ne ni kenn ku nekk si ñun bëggoo ko woon te yéenewoo ko woon Sénégal ñu ngi ñaan yàlla tamit yàlla wàcce fi jàmm waaye nag képp ku fi topp leader yi politiciens yi demal nga uuti kaaraange ba pare te ñoom ñi jege wante seen biir ñoom ponkali seen biir ñooy liggéeyante yëpp pour place rek la ànd naa ñoo xamante ne ni jëflante ñoom ñoo xamante ne ni ñu ngi leen defoon yoo xamante ne ni su ma ko waxoon te àdduna tukki. Mm-hmm. te ci liggéey yu garaaw lañ leen def yoo xamante ne ci atu etu muuma. Mm-hmm. etu gumba yi nga xamante ne ni ci yére muuma lañ koy def. Mm-hmm. loolu yu garaaw la ak yi nga xam dañ koy suul ci armeel yooyu yëpp dañ koy def ngir lan ngir yàqal la ñun nag alhamdulilah yàlla daf ñu dimbal lu leer nañ lañ yor. képp ku ñu seeti bépp tawat boo am ci kàttanu suñu borom dinañ la ci jàppale waaye duñ la ci jàppale lu dul alquran ak suñu kurus. loolu lañ yaakaar def mu àgg nag wala wax mu àgg rëpp ci loxo yàlla la nekk waaye am na lu ñu yàlla dénk nit ñi jëflante ñëpp ñu ngi ñuy oo wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla ci loolu bu baax a baax a baax alhamdulilah. ñu gis ni tamit xamante ni bii moo di ñenn yi ñoom si yenn place yi mun naa ne ñoom si yenn bërëb yi sax mën leen jox bopp mun naa ne sa bayra Serigne Ousmane lan la si bayra. loolu yàlla may nañ ci loo xamante ni gisuma tamit ku ko may moom it mhm. wàllu bayra am na ku gën a fi fii tey ci waykat yi ci man mii la jaar ki nekk topp waxtu yuñ toll nii ci man la jaar a ah, moom daal bokk na ci gën a moom wax ma la sax bokk na ci instant bi moom la ñu gën a déglu ci réew mi ci man mii la jaar yàlla dimbale ma ma jox ko li ma koy jox maa ko liggéey ci suuratu Yuusuf Yuusuf yàlla may na ko bayre boo xam ko mosut ko may kenn falammaa ra'aynaahu akbarnahu wa qataana aydiyahunna wa qulna haasha lillahi ma haasa bashar loolu moom rek moo ko mos a am ginnaaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mayam yi foor foor foor foor mu Yusuf yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko mu may waaye bayre bi ma defal waa ji ci Yusuf laa ko liggéeyee waa ji amul kenn koy gis bañ ko mhm. wala nga dégg ko bañ ko ku ko dégg rek bëgg ko mhm. képp koo xamante ne nag soxla nga yooyu noonu dañ koy liggéey ci sooratu Yuusuf rek ci alquran lañ koy liggéey waaye dafay laaj tamit nga sell ba pare sellal ci kàttanu yàlla yàlla jox la sa càkkuteef léegi-léegi dañ la jiiñ lu nekk nag waaye cangat bu neexee borom lu ne dana ko dégg waaye bu teraanga yokk toujours noonu yokk te dana am teraanga te dana jox ca kaw lool amul kenn ku koy téye ci ñu toll nii loolu moom maa la ko wax xaccoo bi nag bëri na ci côté am lool waaye nag moom xam na ma xam naa ko alhamdulilah. macha allah mu ngi kii mooy Serigne Ousmane Wilane Serigne Ousmane ñu gis ni tamit comme monsieur mel ni wujje parfois nga gis kenn jiitu si kër gi du bëgg keneen ku si topp waaye tamit keneen su si toppee rek dañuy faral di gis ni coow du jóg si kër gi li bëggoon xam si loolu noonu lan nga si mën. waaw loolu ba yàgg na fi dama toog benn jigéen ñëw si man laaj ma benn question ne ma Adama ak Hawa bi ñu nekkee ñoom ñaar mu ne mosta jàng ci alquran foo xam ne Hawa ñaan na Adama xaalis Hawa mosta ñaar Adama xaalis. ndaw si tontu ko ne ko man mosuma gis foo xamante ne ci alquran xawaa ci boppam Adama takkal na ko wujj mosuma koo gis ci alquran loolu question la kon diggante wujj ak yàgg na fi waaye ñun alhamdulillah ça dépend ci ndaw si ni bëggee rek lépp lu ñu def na yàlla rek lañ ci xool waaye ñun jigéen bu ñu set si bala sa jëkkër de nopp nabaan si wax la ne man de benn jabar lay am muy yow nga set si ma ci kàttanu yàlla. man maa lay defal loo xam ne deetu am wujj ci kàttanu yàlla deetu am jigéen boo xam ne dangaa bëgg a sëy dee fa ngay sëy laa la wax de nekk fa ba xëy génn fa génn àdduna bëgg faa sax jaamu fa yàlla ba xëy jooy koo fa boo ma seet see incha allahu dinaa la daaj ca place ba sa jëkkër du la mos a fasanal te sa mbooleem jigéen bu mosa am yaa ko ci gënal dinaa defal loo xam ne bu soobee yàlla moom moo lay yaa koy gënal ndeyam ak bàyyam ci boppam lépp lu xam guddi dina la ko wax ndax noob yu garaw laa lay wax ni mm-hmm. yoo xam ne maa ngi ko liggéey ci ci wa alqaytu alayka laa ko liggéeyee dañ koy booleek yuuru ginaaru benn melo lañ koy booleeg xam nga nguru benn gunóor boo xam ne dafay tàgg ca dafay kii ci tabax ci kaw mm-hmm. da koy toj du laal suuf nga dékkundu ko boo ko jëlee boole ko ñoom ñaar liggéey ko ci baatab wa alqaytu alayka mahabbatan minni mm-hmm. ndaw si liggéey ko soo ko joxee ndaw si mu jëfandikoo comme ni nga ko waxee ci kàttanu yàlla jëkkëram du am benn secret bu muy denc ci biiram bi lépp lu xam dana ko yóllil ndaw si loolu jigéen ñu bari xam nañ ci man loolu man jëflante naa ci ay nit Amérique ba léegi fu mu toll nii loolu moo gën a siiw ci man Amérique man loolu moo ma gën a yóbbu Amérique fu mu toll ni mbir moom moo gën a siiw ci samay mbir te loolu Sénégal fu ne commencé nañ ko trouvé ñoom it ba sonal ma ci sax maa ngi ci commencé liggéey bu baax waaye jigéen bu ma seet si man billaahi doo am wujj loolu maa la ko wax. bu fekkee ne sa jëkkër waxoonte na yow ba ne la man benn jabar lay am mu dëggu ci waxam soo ma seet sa dootu am ji man maa ko wax ci kàttanu yàlla. fii ci biir réew mi ñoo xamante ne ni ñu ngi ñoom ci côté yooyu bëgguma nga nabaan jigéen ci wàllu wax ne ko dinaa la takk te gëmal ko dañ ko takk ba mu nekk dëgg mu am yaakaar ci yow lool ba pare takkoo ko te léeg bari na ñoo xamante sëy ju bëri jigéen ñu bari di leen tàcc seen néegi yaay ba léegi sëy wuñ benn affaire kese la. am na benn secret boo xam ne ci bopp jën lañ koy liggéey góor gu ñëw ne dama laa bëgg nga nangu ci wax jooju doon ngeen ànd yéen ñaar nekk mu dem ci sëriñ yóbbu ko mu dugal ko ci bopp jën bu mag den bi tudd coof ci lay dugal liggéey bi suul ko ci armeel kooku boo takkut kenn deetu la takk léegi nag bëri na jigéen ñu bëri loolu moo leen fi tey ñu naan leen faru rab laag àndaale laag lii laag fekk ne liggéey yi nga xam dangay am far bu pare far bi di liggéey nga am coro coro bi di la liggéey gel gel bi di la liggéey loolu moo waral jafe-jafe yi nga xamante ne am na fi mm-hmm. bëri na ñu fi wax dañoo am faru rab amuñ benn faru rab mm-hmm. liggéey yu ñu leen liggéey moo leen bàyyi seen kër yi moo tax mënuñoo sëy mm-hmm. liggéey yooyu nag il faut ñu dindi ko liggéey yooyu am na lu ñu koy dindee xam nga dañuy wax ñu ne lépp lu bàyyeekoo ci ndox rek dafa dagan yaa ngi dégg waaye am na yoo xamante ne ni su ko nit ki liggéeyee nit ci bopp jën dugal ko ci armeel kooku noonu boo ko takkut bu pencam yàlla du am jëkkër bari na jigéen ñu fi nekk ba màgget mos ñu dégg alxayri xam nga lan moo ko waral dañuy toll seen digg jamono am ñu leen bëgg góor ñi di leen jàkkalante di leen liggéey liggéey yooyu ñu leen di liggéey nag moo leen jàpp ba fu mu toll nii pour ñu am jëkkër dafa jafe waaye liggéey yooyu am naa ci secret boo xamante moo ci gën a gaaw pour toj ko am naa ci benn boo xamante ni maa ngi ko liggéey ci basmala su ma ko liggéeyee semaine du ko am liggéey bi toj soo toogee weer déggu alxayri boo ñëwee ma delloo la sa alal te man yàlla dimbale na ma sax du may jëflanteeg nit ci alal lépp lu may jëflanteeg nit ki rek te yàlla tax waaye nag maa ngi soxla ñu am kóllëre waxuma koo xamante ne amut kóllëre waaye ko am kóllëre rek boo ñëwee incha allahu du alal moo tax ñu jëflante mais dinañ jëflante ci jëflante bu rafet ba xam ne dañ ci gis yokkute bu baax a baax a baax macha allah alhamdulilah. ci loolu macha allah am na solo bu baax a baax ñu gis ni tamit comme lu si mel ni ku a ak jabar. loolu tamit ñu bëggoon xam Serigne Ousmane la mën si waaw léegi comme wax naa ko ca émission bi tey ma waxaat ko ci biir rek. donc maa ngi koy liggéey ci soratu Mariam. comme li ma la wax na ba léegi rek xam nga kaamil bi laata sama pegg man ne la lépp lu ma lay wax rek génnul ci kaamil bi man ci alxuraan lay liggéey soratu Mariam soo demee da nga fa fekk li ahabi laka xulaaman zakiya aaya boobu si lay liggéey lépp lu may liggéey ci wàllu am doom mën naa koo liggéey ci 88. ak la ca aju du lépp la ñuy wax nag mu kii waaye alhamdulilah bépp jigéen bu taxaw am na ñu ci jëflante ne yàlla wan ñu ci résultat waaye def lépp man lépp loolu yàlla rek la loolu ñi nañ ci bàyyi xel mais alhamdulilah yàlla may nañu bu doon cent quatre dix yëpp yàlla wan nañu ci résultat bu baax ne am na ñoo xam ne jëflante nañu ñoom fii ci biir réew mi ñu am doom am na ñoo xam ne jëflante nañu ñoom ci bitim réew ñu am doom te ci li gën garaaw nag doolante nag benn jigéen boo xamante ne ni dugg na quarante cinq ba dem quarante six génn xelaa génn xelam ci doom yàlla suturaal ma ñu boole ma ak moom ndaw si mu ngi bitim réew instant bi may wax ak yow nii su ma waxee sax moom dina xam mu dem ba génn ci xelam ci wàllu doom yàlla dimbali ma ñu boole ma ak moom ba ma ko yónnee li ma ko yónnee mu def ko comme na ma ko waxee moom mu ngi koy liggéey bu ñu ko liggéey pare ginaar nga koy boole rek ngeen togg ko togg bu baax ngeen lekk ko yow sa borom kër bu paree nga jël matière bi yëpp gas ko suul yax beeg yax yeeg yi nga ko suqeeg yëpp yëpp gas ko suul ci kàttanu suñu borom doo toog weer te gisoo ëmb bi loolu mu amul benn sikki sàkk loolu dañ ci def yu garaaw du lépp lañ mën a wax mais alhamdulilah yàlla du la may toujours pour nga taxaw ci télé yi de puukare wu ne yàlla may na ma yàlla nangam na ma mm-hmm. waaye li ñuy def ni yëpp pour sant gën a xam mm-hmm. waaye nag ñi gàmmoo ñi ras dem toujours maa ngi koy wax bari na ci réew mi fu mu toll nii ndax liggéey bi dafa yàqu léegi ndax bari na ñoo xamante ni xam-xam dañ koy doon benn boo ko doonee pare nga jàng ko mu wér nga gëstu ngir xam am na ñoo xam ne xaatim bu dammu sax xaatim bu baax sax mënuñ ko xaatim bi damm rek la ñu joxe moo tax ñu bëri dañuy dem lu ci sëriñ man dafay déclaré ba son dem naa ci sëriñ diw dem naa ci nangam dem naa ci nangam lekk na sama 2 million lekk na sama 3 millions man du war laa lay wax nga def ak man li may def ak yow ma wax la loo xamante ni dara du ci am sikki sàkk mhm. ñu bëri lool lañ lañ leen sonale mhm. ay defal nangam jox ma nangam jox ma nangam man duma laaj dara mhm. dara duma ko laaj li ma tax a jóg nag dama jóg pour xetti li jaam yàlla yi pour dimbalante ñoom waaye nag ñi ma soxla mooy ñi am kóllëre soxla ma kenn ko amul kóllëre ko amul kóllëre téyel sa bopp mais ko am kóllëre boo ñëwee jëflante ba nga xam ne ki nga ko fekk gor la ci kàttan suñu borom baax a baax di gërëm mbokk internet yu àndaloon mhm. ñu leen di jox dig daje si beneen yoon. Mhm. incha allah mhm. képp bëgg a jëflanteel Serigne Ousmane Wilane numéro yaa ngi noonu suufu baaru écran bi. Serigne ñu la nga tàggatoo a jëflante ak yow léegi ñi bëgg xam ne ñi bëgg a xam place bi ñoo ngi géejawaay ci pharmacie PAI bi. waxtu boo fa taxawee boo ootee ñu jël si la incha allah euh, numéro bi. yaakaar naa ñëpp xam nañ ko soixante dix huit la deux cent dix huit quarante cinq quarante cinq numéro boobu mooy sama numéro bi nga xamante ne ni moom lay demee fu nekk ci àdduna bi ku ma ci oo rek incha allah di ma jot te nag listixaar moom li ma la wax du ma ci jël lu paase ñetti nit ci guddi leneen lu ci dug loo rax rek ay tappaleen ci waaye listixaar moom ñetti nit su ma la jëlee mën naa leen wax seen bis léegi nag ki njëkk ñëw ak ci topp mën naa ko jël troisième bi mais keneen ku ñëw dama lay baare def ko list ba suba ak jàmm soo koo liggéey. Mm-hmm. ci kàttanu yàlla ndax bëgguma jëf jël fi jàmbur ba pare di la wax na la maa nga ca te ma ca mm-hmm. ndax nit ki lépp looy wax set yàlla te maa ngi dénk ñëpp mm-hmm. comme li nit ñi di wax saar bi gën a gàtt wala bokk na ci yi gën a gàtt ci alquran. wal asri inna al la fi qusr illa allazina amanu wa amilu wa tawaasaw bil xaq wa tawaasaw bi sabr loolu rek lay dénk nit ñi tënk ci dëgg ba pare àndale ko muñ balaa yi wàcc sa kaw yëpp nga muñ ko di ñaanlu yàlla di saraxe yàlla mun na la dimbale jafe-jafe yi nekk si yow yëpp dañ ñu ngi ñaan ci réew mi jàmm di ñaanal mbooleem kilifa diine yàlla yàggal leen fi ah yéen ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla na leen yàlla yëkkati jox leen lu gën a kawe ci jot seen mbir incha allah ci kàttanu suñu borom ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim macha allah alhamdulillah